asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 9 avril 2019 ñëw ci yëglikaay yi sunu làmb nag tey fa la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi nag tey dafa xëy andil ñu ay mbër yoo xam ne nii daal ñu nga taxaw mu mel ni ki ñoom daal daa mel ni boog boo bëggee dëgg-dëgg léegi seen affaire baax moo tax sunu làmb ñëw woon ñu kii di Ama Baldé Tapha Tine Gris Bordeaux ak Bombardier Siteu ak Papa Sow mu mel ni nag sunu làmb nee na Pape Thialis moom li mu nar mooy saison bi maanaam tëjtal saison bi daal moom la bëgg a yëngal la yëngal la yëngal ba mu yegg ca lool ndax nag boo bëggee dégg dëgg daal combat yooyu nga xam ne ni moom la ñu tudd wala mbër yooyu ñu fi tudd daal seeni combat fi mu nekk ni day Thialis mu nga ca di ko dox te nag am nañu yaakaar ne day taxaw moom nar na caa am muy Ama Tapha Tine Gris Bombardier Siteu Papa Sow yëglikaay bi daal nee na kii doom di Pape Thialis Faye moom li mu bëgg moom mooy saison buy tëj moom mu tàngal ko ba mu tàng jër ak ay combat yoo xam ne amateurs yi ñu ngi koy xaar am na ca koo xam ne nag ca mbër di Gris Bordeaux dem malade sem génnoon na di kii nga xam ne nii moom moo di xalifa ja ne ñoom négociation yi Gris Bordeaux yooyu seegul ci ñoom wala boog yëg seegul ci moom waaye Max Mbargane daa mel ni mu ngay weddi loola moom miy coordonnateur u Leewtoo Max Mbargane nee na ko day li am ba des daal mooy ki nga xam ne nii mooy Gris Bordeaux moom mook calis wax direct la ñu def maanaam négocier en direct intermédiaire sax amu ca kon daal wax jooju moom dafa jàpp ne loolu xalifa yi wax du wax ju tegu loolu mu ngi tey ci sunu làmb bi nu xëyee fekk nañ ko fa kenn koo xam ne moom fekk nañ ko ci yëglikaay bi mooy Franc bu parcelle Franc nag moom dafa mel ni fi mu nekk nii yàkkamtee defante la def moo tax mu xëy di laaj général Malika wala Ahmed Dem Franc ne nag ñoom ñooñu wala keneen ku dul ñoom sax na ñëw ndax fi mu nekk nii daal sama yaram day xesen te defante dong dong mooy li mu bëgg ka defante ba pare ba gagné moom ka mu defanteeloon mu ngi koy wax ak moom muy gàmmu gi Tëngéej ñëw na ci combat bi doxoon ci diggante mag ki nga xam ne ni moo di Coly fay numéro 2 bu Caaroy gàmmu nag la mu xamal Coly mooy li leer ba leer daal na xoolaat boppam xool entourage am xool ñi muy àndal ndax ne na am na loo xam ne moom wala ñoo xam ne di ànd ak ñoom ci làmb ñooñu làmb yëkkatiwule te dañuy sabote yàqal la dong la ñuy def moo tax daal mu di ko xelal na xoolaat boppam bu baax a baax moom koli fay numéro 2 gàmmu gay xëy di ko wax loolu làmb ji ñëw na ci ak ndam la ne na mu ngi gërëm waa gépp rawatina nag ay coach sam muy papa yadd ak Forman Gueye ak mbokki mbërëm yi dëkk Tëngéej yëpp muy ñoom ama neex ak doomu dàngoog papa yadd ak nee na daal ñoom jàppale nañ ko bu baax a baax a baax moo tax fi mu nekk nii li ñu man ñu di ko def ñoom xale yi nekk ca Tëngéej waaye nag mu ngay woo promoteurs yi ngir ñu jox doomu dàngu ak kii nga xam ne ni moo di am a neex ay combat ndax nee na ñoom ñoo des bu ñu amee combat rek lépp dina neex gàmmu géey moo xëy tey di wax loolu waaye na mu daani kuli itam ñëw na ca daal ci wàllum xeex ba nee na moom dafa ñëw dim doon ma jaay girye waaye ba mu ñamee ma ñam ko la xam ne dëkkëb dóore fayoo ko tasoon mu xam ne amatul pexe mu changé stratégie di ma song si ma def ko la ma ko def nee na maag moom mënunoo bëri ndax li tax mënunoo bëri bokkunu ci lenn dama koo dàq ba ëpp ko doole loolu mooy waxi kii nga xam ne moom moo di gàmmu géey tey ci yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu làmb kii moom ka nga xam ne ni mooy forsa bi génnoon ci Leewtoo TV wax fay waxam ne bëggul góor a soog góor a moom yëglikaay bi ñëw na ci moom nee daal forsa moom mooy priorité am moom góor a soog daal ñëw na tey di wax lool ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu làmb leneen loo xam ne nii moom fekk nañ ko fii nga xam ne mooy sunu làmb moo di booy fay ci lit simple bi booy fay moom boo bëggee dégg dëgg suñu làmb nee na fi mu nekk nii day li leer ba leer day ci wàcc la toll ndax nag gañee xaw na koo ta fan rawatina fii di Grand nag amateur lit simple daal mayuñu ko jàmm mu mel ni ki booy fay moom fi mu nekk nii moom li leer ba leer daal ay mbiram doxatul xaw ma nag lu xew sunu làmb xëy tey dina ko wax waaye loo ci mën a dégg daal làmb ji moom sàjj na te yëngu na waaye ñetti combat yi ñu fi wax Tafatine Ama Balde Giri Bombardier Papa Sow Sitta bu taxawee day loo ci mën a dégg làmb ja yëngu woon na waaye dana gën a yëngu ba yegg ci buum. maaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen nii bu baax di leen bëggee di leen ziar comme chaque jour rek ñu ñëw ak yéen ci seen jàngat revue de l'arène ak sama mag sama xarit kan Babacar Babacar nuyu naa la. Aïssatou Faye maa ngi lay fay madame Niang sama rakk sama jigéen sama xarit comme ni ñu koy waxee di ñu ñuy suivre ci Leewtoo TV rek ak fu ñu mën a nekk si àddina bi di leen ñaanal jàmm te di ko saaku ci ñoom daal voilà. waaw Babacar ñu ubbee tey ak euh, li nga xam ne suñu lamb andi na ko muy fin de saison bi nga xam ne Thialis euh, bëgg na ko muy ay combat yu neex Gris Bordeaux Bombardier Tapha Tine Papa Sow Siteu mu nekk affiche yoo xam ne nee na daal Pape Thialis dafa bëgg enflammer fin de saison bi explosé ko. <laughs> enflammer su ma ko déggee mooy. tàqal ko jëppët waa loolu moom vraiment. bu amee dina neex ñu ngi koy ñaanal nag loolu mu sumb mu réussir ko di ko ñaanal tamit promoteur yëpp nag ku ci nekk la nga sumb yàlla na nga ko réussir mais jàppal ne daal Thialis loolu bu dikkaatee indi loolu par rapport ak daaw li mu fi defoon kon dina dina marqué bii nu nekk loolu nag ñu ngi ko koy souhaité parce que tamit ku yokkul yaa wàññi te vraiment bi mu ñëwee ci làmb mu ngi yokk ndax lii mu ngi yokk mooy daaw ay combat yu amateur yi s woon mu tëgg yaa ngi dégg ñu ne déet ne waaye foofu la ñuy yem mu lancé tey fii niy waxee muy Leewtoo muy site internet bi nga xam ne tamit 100 pour cent lamb lañ fay def kon moom ñëwum ci lamb defe naa ne du pertement ci waa lamb kon tey bu ñu xëyaatee gis ko comme ba ñaa ngi naan ñoon dañuy année balance ak du ñu année balance ñu ne ñu am yaakaar ne da koy tëgg bañ ne parce que léegi ko ah loolu duñ ma def loolu ñaanal ko mu réussir ko rek muy tafatin ama jaadu la ta Siteu a Papa Sow la kon moo loolu moo lay won ne daal ah lamb ji fi mu nekk nii daal sajji na daal yal na gën a sajji nag waaw waaw ba tey dañuy continuer ci loolu dem ci ki nga xam ne ni mooy euh, Max Mbergane ginnaaw bi Khalifa Dia génnee di manager ci Gris Bordeaux wax ni combat bi yegsiwul fas moom xamal na ko ni kii waxaale mi ngi waxaale mbër mi directement. <laughs> lamb de li ma la rek léegi moom dafa bëri ay raccourci ba nga xam ne ni raccourci yooyu nag soit mbër bi dina waxaaleel boppam wala moom agent bu koy waxaaleel yaa ngi dégg am na fi nga xam ne nag des fois manager bi moom foofu il faut que mu xaar waaw fa lay xaar mooy au niveau du CNG su fa euh, lamb ja yeggee maanaam bu fa reliquat waree dugg si ñu astafur wala boog bu fa amas waree dugg ñu war a def li li jëm ci wàllum régulariser combat bi wax moom moo fay am kaddu parce que moom la ñu reconnaître bu ñu jëlee reliquat tamit loolu waaye li nga xam ne nag yeneen détails la yeneen négociation moom boo xoolee mbër mi des fois moo koy def moog ñamu wóolu ci ci ay mbiram moo tax xam naa Max Mbargane mu ne giri wax na calis kon loolu moo lay wan ne daal ah, waaw waaw làmb ngi noonu làmb moom waaw mu ngi noonu làmb làmb la tudd rek. waaw waaw. Ah, ñu jóge foofu dem seeti ki nga xam ne ni mooy franc booba léegi nit ñi di ko xaar eh, gisaguñ ko même eh, lutte simple bi nit ñaa ngi koy xaar lutte avec frappe bi waxi noonu léegi moom nee na daal pare na pour ki nga xam ne ni mooy Ahmed dem wala général Malika moom daal mi ngi xaar promoteur yi. waaw franc da ci mbër yi la bokk parce que li tax ci mbër yi la bokk mooy lutte simple bi vraiment wane na ci boppam lutte avec frappe bi tamit amagu ci defet mm-hmm. daaw mbaytin la mujjee daan loolu Mm, champion bu mag a mag la Franc ah, ñooñu wax tamit yaakaar na war nañ ko mën a gëstu bëri ak moom moo xam moog général Malick la yaakaar naa lamb bu jaadoo jaadu la parce que général Malick gis na ne ku ci tournoi yi li li affaire Franc bi tamit gis nga ndam lu ku ci ne ñoom ñaar boo xoolee sax ñoo bokk kuñ mujj a daan mm-hmm. général Malick mbaytin la mujj a daan Franc mbaytin la mujj daan général Malick moom eh, bi ko Franc dëkkee ci gi ba mu wax na ni bëtam teg na ko feneen daal am na yeneen de Aysatu des fois yow kii day bëgg a ak yow yow nga bëgg maanaam wute bëgg-bëgg mooy tax marchandise yi jar waaye ci côté bu ñu waxee ci côté làmb ñoom ñaar war nañu mën a bëre waaw parce que tamit ay champion lañ te bu daje nañ fi ñaaxaar franc am la a soog mu ne a soog bëréewul ak moom tey waaw nee na nag euh, waxut ne du bëre ak moom waaye bëréewuma ak moom waaw moom daal nee na Yékini si ñor la teg bët wala Malick ñaa ah. Gora Sock nag loolu mu wax am na si droit ndax Gora Sock ak fa Forza boo leen xoolee ci taxawaay tolloon nañu waaw waaw kon day gàmm waa parce que moo newoon ci géew ba moo doon bëree moo koli ñoo laalante loolu nag moo lay wan ne que euh, làmb doolee koy def fita koy def mën a bëree koy def ànd ak ñi nga waa àndal la koy def loolu nag xëy na moom la def kuli itam loolu la def waaye ndam nag yàlla moo ko moom moom moo am ndam li kon moom am na droit dikkaat ci combat bi wax ni mu ko boo xool nag ci biir combat bi ah euh, li moo gën a sonal kolifay pour man mooy relance su gàmmu gi parce que gàmmu am na relance te par rapport ak boo ko gisee taxawaayam da ngay xalaat ne amul doole mu denc doole la mook mbër yu mel ni ay papa yàddu euh, ay sew la ñuy doon mën nañoo sew ci taxawaay mais ay satu bu la yàlla di nattoo ba seen ku dal la dangar baa nga ci biir boo weddee combat pam gi ngay dem nga seetaanaat ko combat bu metti euh, Modou Lo tey am na ko am na combat nga xam ne ñooy manager yi fii jàmm ñoom nee na est ce léegi jotul nag ñu changé situation bi. waa loolu de naan si boog teggi nañ sanction ci des mooy mu am na combat moom tëdd fi kon xëy na jéem a dool parce que loolu dina tax xale yi waa écrit bu bëggoon ñu bëri buñ mën a am ay combat ah ñoom bu ñu xëy na dinañ jéem def différence génn waaye loo mën a dégg daal Rock Énergie tamit bokk na si écrit nga xam ne am nañ mérite parce que bi ñu yàggul te fexe nañ tey ba bokk ci làmb ba fu ñu tudd nit ñi rek tudd leen fa te waaw te loolu mooy liggéey pour man daal Babacar nga fàttali open press yi nga xam ne tey jii waa ñiy suivre Leewtoo TV mën nañ ko xaar ci Leewtoo TV waaw muy kii ci dëkk mooy wulli de bu bawal xam nga le 13 bii ñu jëm di samedi lay bëre moo ambulance bu Thiès tey moom la suba ambulance bu Thiès la yaa yeneen open press yoo xam ne day am parce que ñoom laay Pythagore ay moom parce que moom la 14 la war a bëree jamaykee moo ko tëgg ak ki nga xam ne ni mooy ñaq jariñu loolu lépp war a am ci weekend moom moo lay wan ne weekend bi ñu jëm moom weekend bu tar lay doon parce que samedi Iba Mar xam nga ne te dana tàng ak Bawol production wuli de ambulance sil ak balde jaar fa sam dimanche bu ñu ñëw garga mboose ak Moussa Ndoye fële ca stade Iba Mar Diop dafay am yaa ngi dégg pour ñu waajal seen combat pour le 28 avril kon daal yàlla na affaire yi gën a neex daal te ñu fekkee lépp te tal ko waaw waaw waaw ñaan fekkee te tal moom moo ëpp solo ci lépp loo gis ci loolu la tàggoo ñi xam ne ni ñooy suivre revue ñu leen di jox rendez-vous suba di jaajëfal Mame Talla si caméra bi Ousmane Diallo si montage bi di béggee ñëpp di ziar ñëpp tey mag may souhaiter un joyeux anniversaire sama doomu nijaay sama ma doom ñaari cër laa am ci moom doomu nijaay la doom la ma koy souhaité joyeux anniversaire mi Pa Doudou dundal lu bëree bëri bëri bëri dund bay teral euh, sa yaay mi di li sa fay sa papa di sama nijaay Maxtaar Sugu di leen ñaanal euh, gudd fan ak wér ba ñu fekkee sa njëriñ ñëpp fekkee sa njëriñ ñëpp xaj ci mu nekk wërsëg bu yaato yaatu yaatu am na solo amin Aysatu ñaan boobu yàlla na ko yàlla def ah di nuyu comme ni nga ko man di nuyu ñoom Ndey Kumba Faal Biram ñi nga xam di nuyu équipe bu Leewtoo bi yëpp ñoom joor sax maa ngi koy nuyu tey ak ñoom Modou Mané Yande Iba ak Sahara Couture ñu nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu tamit euh, ki nga xam ne nii moom mooy Habib Ndoye sama xarit la nekk fële sa États-Unis maa ngi koy bu baax bax ak doomu ndayam samit sama Youssou sama rak l'international Sénégal Baye Sall Ndongo Argent Brésil xam nga ay nekk rek kuy suivre Leewtoo TV à travers le monde ak foo mën a ne waaye itam du ma fàtte ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre fii nekk Sénégal fu ñu mën a nekk ñoom xaar la gay ngi pon sa ñoom ma sam sura mali nag di nuyu wala ñaar boog muy Khady Rose Ndiaye ma maa ngi Allemagne mais tuuti yaay Sarr tamit mention spéciale di la ñaanal jàmm ñaanal ñëpp jàmm na ko yàlla def ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aysatu yàlla na ñëpp am jàmm Serigne Touba noonu na jàmm moo gën àddina bi nu nekk ëllëg yowmal xiyaam moo fa kon yàlla nañ ko yàlla defal barke yonente bi sallam di bég ci yow waaw incha allah